dañuy sant yàlla bu baax baax di julli si bi di ñaanal sama papa ak sama tante fi mu tëdd yàlla yàlla xaaraaje fi àjjinay firdawsi dañoo am nag sunu benn kilifa bu génn àdduna muy sunu mam, muy Baye Birane Diop di ko jaale waa Sénégal surtout waa Caaray Géej ndax ay doomam dañuy sonn si man ñu koy jaale ay doomam yep waaw di nuyu mbëri fi yep, yëpp su mel ni Xaadim Njaay un ak ñu fi teewul Xaadim ñëpp mbëri Caaray yëpp maa ngi leen nuyu ku nekk sa ak sa di di gërëm ñoom naal bu ma juumee damay juum. di nuyu sama fan yi nekk fii ñoo tax may sonn waaw di leen bëggee bu baax a baax gis naa nuñ ci taxawee maa ngi nuyu ñëpp surtout ma waa Oryx si maa ngi leen di bu wér a wér Alioune Sarr ak waa Lam Sarr tey maa ngi leen bu baax. te dañu gis caaro mhm. mhm. mhm. waaw loolu moo am lépp instant bi caaro lépp benn la. caaro yi léegi lépp benn écurie moo fi ne ñun caaro yi fu ñu nekk drapeau am nañu suqal mu jëm si kanam si kattanu suñu borom. yàgg nga bëre ak luur. <laughs> mais la boo xam ne dafay bëre dafay xeex. Mhm. te daan na ñetti man luur luur jaaxaluma man damaa mën a bëre luur chaque jour dama koy wax waa presse man kenn ku ne ak yàlla suñu borom lu mu lay may man damaa mën a bëre ak poids luur loolu yàllaa koy def ñu yàlla mooy def loolu. Wah, ñun ñoo xex ba bis ba dinañ xam ñun lu ñu mëne ku ma mës a xex si bu duggé ci si ba da ngay wori ta ci katolu suñu borom bu taxawé ma duma ko daan ka ci katolu suñu borom. non day gaaw combat bi amul luy yàgg nit boo ko mënee doo yàgg ak moom nit boo ko mënee doo yàgg ak moom te si kàttanu suñu ko wan luñ ko luñ ko mënee lépp li si lépp lu mu indi rek ñu tax si rip lu mu indi fekk ka fi eh, lu mu indi fekk ka fi waaw mais loolu moom la rek yee moom loolu moom la man li ma war ak sama promoteur bi dama koy def ba mu mat sëkk yee loolu la. Mhm. waaw gars yi seen xalaat rek lañ wax. yee te combat bi doonul combat bu ndaw. yee te ñun xam nañ loolu. yee samay fans xam nañ li yor. yee. dama dégg sama naan c'est pas hmm. waaw mooy lu ma la wax rek lu mu laaj rek lu mu laaj rek dañ koy def si kattanu suñu borom damay waaw bu soobee suñu borom mais tey rek rek boo hmm. hmm. yokk rek yee te maanaam mbooloo mooy doole e ku si mel ni Baye Mandione ñoon gis nga xam ni e mbooloo mooy doole waa Thiaré gépp dañ ma ngemb di xaar bis ba samedi yàggatul trois jours moo si des mooy ne trois jours di ñaan yàlla yàlla may ñu ndam loolu moo si des man du pression du man na toog xaar waaw. gis nga tunu ah, ah, nu mu tuddati nu koy waxee sax waaw tungu ne nataal gis nga mbooloo mi fi ne waaw ñii moo ñii moo may rey sama bopp. waay man yow non non maa gën a tuuti si caara yi maay mbër mu ndaw gën a ndaw si caara yi fooy tuddee Baye Mandione di ma tudd ah fooy tuddee Xaadim Njaay di ma tudd ak ñeneen ak ñeneen ye ma gën doon xalé ci man may ciatu uh, ciatu ciaray ma maa doon xalé ci ciaray yi ye wa gis nga mu ngi ni man nga gis nga mu ngi ni wa dañu xam su lu ñor man marchandise duñ ñor dañu xam valeuram motax ñu wax la loolu ta ci suñu borom non lay démé non lay démé li wax dama kay def si kattanu suñu borom dama koy duma dama koy daan si kattanu suñu borom. amul lenn lu may maytu si lu muy indi ah ma fekk tas bu taxawee du mat cinq minutes bu taxawee du mat cinq minutes si kattanu suñu borom Fass xam nañ xam nañ waa Kaneen chaque jour dama koy wax xam nañ waa Kaneen ah waa Mbaye Gueye sunu papa Mbaye Gueye sama pa sama papa lu mu ko def da dóor mu daanu waaw n'est-ce pas waaw ak benn jëlle boo xam ne moom lañ waaw Youssou Ndour na ko jëlle boobu xaar ba tey gisaguñ ko waaw verdict ba nañu xaar ba tey ji waaw bii lay doon incha allah bu soobee sunu borom lu mu laaj lu ini indi rek tax sirip waaw waaw madul mirkes madul mirkes dafa ay champion d'Afrique ban ak ban la daan non non Pakala waaw ak kan ah kan ogis ñooñu duñu man ñoom tamit duñu duñu duñu ñoom te man duma ñoom dégg nga man damay du damay xeex damay bëre man kenn du ma dóor may yooru non damay xeex damay bëre xanaa déggoo ma wax naa ko yàlla mooy def loolu si kenn ku ne mbër mu ne da am loo ma man yàlla damaa may ma mën a bëre poids lourd dama xa aay si punkal damaa mën a bëre ak moom bu ma doon mille mille kees sax damay mën a bëre ak moom ndax dama kaa mën a lim nag bu ma limee damay juum di wax sunu papa sunu papa Malick Gakou wax sunu papa Malick Gakou na ñëw jàpp si combat bi waaw na ñëw jàpp si combat bi ñun ay doomam lañ na ñëw jàpp si mu ne sax euh, maa ngi nuyu ñëpp bu ma limee damay juum te eh, du ñagañaa na ñëw jàpp si combat bi nuyu ñoom Ali ñoom. bu ma limee daal damay juum ñoom boogu maa ngi oo si combat bi ñu ñëw jàpp si waaw. di jàllewaat léegi am nañu fu ñuy démarré. yëpp kaar yëpp xam na fi ñuy démarré si jàkka jëlee démarré. Oryx day am kaar fépp day am ay kaar waaw bu weesoo bu liwee bu jëree sax ñu dox dem si kattanu suñu borom.